li sadinatan bi kullil janna min daari ñu fàllu noo gisee ndog yi auzu billaahi mina seytaani rajiim ah sëñ Bass de xanaa sant ndog yi de ni ko gisee moo di ni day loo xam ni dafay perpétuer œuvre Serigne Touba ndax soxna Bali lii mu def day loo xam ni àdduna gépp war nañ koo xam ndax bu ak cant la goo xam ni moom da cee taxaw ngir defar ay bernde defar ay ndogu yóbbu ko ci daaray alxuraan yi yóbbu ko ci kër kilifa diine yëpp muy loo xam ni ay ati at a nii mu di ko def ca ñu ci door a bokk nii mu cërale nañ ci bii cër ñu fooy fekke ànd koog moom mu boole ñu ci ñu di ko ànd ak moom donc day loo xam ni àdduna gépp war nañ koo xam ndax àdduna gépp xam ko sax day dëppook alxuraan ndax yàlla wax yonente bi ni ko xéewal yi ma lay defal na ko waxtaane mu siiw te lii ay xéewal ak teraanga yoo xam ne ñëpp doon koo war a xam pour ñëpp roy ko ci ndax soxna turandoom ni soxna soxna soxna maam soxna bu buso nii la nekke woon ci kër maam Mor Anta Sali ba li mu am mu ko moom de wuy ju na turandoom ci lépp turam wuy na turu turandoom jëfam wuy na jëfi turandoom lii mu taxawal mat rëy na rëy goo xam ni nit ñi xamuñu ko fekk naa ci fan yee poroxaan ma gis ko mu def ko ci daara ja ca nekk ca poroxaan ki démb démb def na ko ci benn orfole naa fii ci Touba fii mu ñëw def ko fii ci ci Touba tamit mais ci sañcaan yi lii àdduna gépp war nañ koo xam ndax sañcaan yii fii mu ko indi nii lii Serigne Touba leen woo nii la ñëw leen ngeen dëkk ak man ñu ñëw dëkk seeg Serigne Touba kon ñii Serigne Touba leen war loolu lépp moom mu xam loolu. jug dox ni ñii de li leen war sëriñ sëriñ Tuubaa warloo maa koy def mu taxaw ci di ko def kon ñu war koo njukkeel war koo sant war koo ànd ak moom liggéeyal ko muy loo xam ni ak jaamu yàlla gi dara gënu koo gën a ci jaamu yàlla ñu bari nag xamoon nañ seen i jëf ci liggéeyal sëriñ Tuubaa waaye liggéey bii muy liggéeyal sëriñ Tuubaa àdduna war nañ koo xam ba xam soxna Baali li tax ñëpp naan soxna Baali soxna Baali ñu xam ci li mu nekk ndax dafa jot fi mu ne ñu xam ci li mu nekk ba tax ñëpp naan soxna Bally soxna baale ca muy jigéen ca góor mën a yóbbalu ko dara loolu daal laa ci amoon. idée Bassam bu jëfat na defat na man inam ndax moom ci lii soxna Bally xam ci li nga xam liggéey sëñ Touba benn nit ñi togg ak yekk jaamu yàlla ne ci la war a nekk. fii moo ko defee nii place bi nag day place boo xam ne nii dafa dugg ci xolam muy pàcc suñu son bi kër xalifaan bi ndax moom def lu mu doon digal. bi mu ko defee bi mu ko xalaatee waxtaan ceeg kilifaam yónni bi woo doomam ji suñu abo yónni ko ci kilifaam waxtaan ceeg moom sëñ bi xolam sedd sama kër waaye soxna si ni ma ko wax ni ma daf naa day edol day edol ci yoonu murid ñun jigéen ñi ñun génération bees bii war na xool soxna ba ci doxalinam ci njàmbaaram nangoo liggéey jaamu yàlla nu nga liggéey ci ko yàlla boole ma sëñ Muntaxa ndax lii du guleet chaque rek ñu ci bi mu amee koor ba léegi ñu togg ñu na ko fa carte yëpp yóbbu na ko koy ñaanal ci barkeb Sëriñ Bamba fi mu bëgg ak yàlla na yàlla bàyyi fi kilifaam gi moom àggale yéeneem yoonu mu yàlla mooy ko fan ak wér man nag samay adol la te ñu ñëpp noo roy ci moom ndax royukaay la royukaay bi yoonu murid yëpp kon ñun bi ñu xale war na xool solo baali ñu ngi koy sant baax nag di ko gërëm xanaa di am mbégte lool ci teew ci barab bii nga xam ne mooy kër sëñ Cheikh Amadou Mbacke moom sëñ Chouaïbou nekk jëwriñ sëñ Chouaïbou yàlla dogal rakam ju baax ji di soxna bari Muntaxa moom sëñ Chouaïbou jëf-jëf ju rëy ji nga xam ne képp ku ko dégg wala sa bët teg ci rek saxul sax saxul sàdd na mu jëf joo xam ne yit nag yaakaar naa jëf ju ko gën a màgg ci weer wi amul waaye jëf ju ko gën a màgg ci dëkk bi amut ndax ku ne xam ne ne Touba day dëkk boo xam ne nit ñi dañoo gàddaay bàyyi seen i dëkk bàyyi seen alal bàyyi seen kër gàddaay ngir ñëw fekk si Serigne Touba dund ak moom am na ci ñoo xam ne it xëy na condition yi nga xam ne ñëw nañ ci Touba wala ñu nekk ko fi taxul mu mel nañ ko taamoo ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu dundinu àdduna waaye lépp sëriñ bi sëriñ bi jaral leen ko kon nag képp koo xam ne da nga bokk sëriñ bi wala képp koo xam ne da ngay liggéey sëriñ bi yaakaar naa gisuma liggéey bu ci gën a màgg wala bu ci gën a rafet lu mel ne taxawu njaboot googu nga xam ne sëriñ bi rek moo leen yëkkati taxawu leen ci wàllu dund taxawu leen ci wàllu am faj taxawu leen ci wàllu dëkkuwaay loolu nag day mel ne soxna si jëf jooju moom la jël. daf ko waaram da ci di ci di ci di ci di ci jëf-jëf yu mag eh, xam naa moom nag ku li muy jëf ku xam waajuram mu seen soin bu xam ni mu fonkoon wàllu social daan ci son lool daan ci daan man nekk ku mënoon a taxawu doomu aadama yi ku xam boo déggee lii ci moom dala jaaxal eh, waaye it nag eh, day mel ne moom xam na xam na xam na xam na xam na fi mu war a féete xam na xam na xam na xam na ne waajuram loolu ko yitteeloon la ba tax na biñ biñ déggee jëf ji mu koy def ñun ñëpp suñu xol doon suñu xol doon da cee saat dañ ci am mbégte moo tax bi nga xamee ne bëgg na ko it daf maa woo yónnu ma ci sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy magam di léppam ne ma kat damaa bëgg nga xa waxal ma sëñ bi ne ko sëñ Mountakha jox na ma ndigal ci ndog yi nga xam ne ak ndimbal yi nga xam ne maa ngi koy def ci dëkk bi ba sax génn dëkk bi. waaye nag moom mooy sama mooy sama mooy sama kilifa ndax mooy sama waajur ndax mooy suñu son bi ci man euh, ba tax na ginnaaw ginnaaw bi mu suñu ndax joxee ndigal bala ma cee def dara wala ma commencé ci dara damaa bëgg yëgal ko ko sàkku ñu ndigalam waaye sàkku ci ak ñaanam euh, wax ma it ne ma mm, fu mu fu mu bëgg ñu defe ko fa it man bu ko waxee la ñu def ko foofu bi ma ko waxee sëriñ sëriñ rafet rafetlu ko lool bëcc lool euh, waaye tegal ma ci ne ma bu nekkoon nañ ko defee sama kër bopp nga ñuy liggéey ci Mbadiane si te àgg te àggagul ndax xëy na barab booba ñu fa war ay sëncaan lañ dañ ko soxlawoo waaye nañ ko defee ci biir kër ga fekk fekk sax booba dañu dañu dañoo xaar def ko ci biir ci penc mu ne nañ ko defee ci kër ga loolu nag euh, euh, euh, digg mag soxna si la ndax xam nañ nu ko soxna si fonk ak cër bu mu ko jox da ko jàppe comme jëm jëm sëriñ sony bu sëriñ bi bët boobu la ko xoolee yaakaar naa barki démb rek yo togg na ay xewel yu bare bare andi andi ko sëñ si Cheikh lu bokkut ak jëf ji waaye jëf ji moom day jëf joo xam ne jëf ju rëy la ju màgg la joo xam ne euh, yaakaar naa li sunu boom wax ci euh, ku lele ku lele ku lele ku ku woor euh, ku woor ba ngoon nga jox ko mu dog yaag moom yéen yem ak pay ca koor ga yonent bi wax ne képp koo xam ne jox nga benn nit bu xiif mu lekk nee na moo gën tabax tabax junni juma kon nag yaakaar naa ne moom li mu jëf ku koy natt ci wàllu rafetaay ci wàllu ci wàllu baaxaay foo ko takk weesu na ko kon nag mënuñu dul euh, ñaanal ko rek barke Sëñ Tuubaa mi ñuy liggéeyal mm, sunu borom nangu ko jëf ji waaye sunu borom yokk a ko waaye dolli ko kàttan ba lépp lu mu bëgg ci liggéeyal liggéey ci ba liggéey ci li koy njortam di ñaanal euh, kilifaam di kilifa ak mbir yëpp di Cheikh Mamadou Mountakha moom ñu ko ci ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ndax lii lépp xam nañ ne mm, ndigalam la ak bëggam la. soxna si dafa topp ci ak bëggam ak i junjam rek kon moom ñu ngi ko ñaan mu yàgg fi lool ba lépp lu mu sumb wala mu naal ko ci liggéeyal sëñ Tuubaa lépp mu àggale ko ànd ko soxna si ñu ko moom moom daal suñu xool seet bu baax a baax euh, fii nag moom kër soxna si ndax Madiana gi gii mu ñëw nag këram na ndax Madiana suñu sooy boo ko moom te kenn kenn kenn kenn kenn jiitu ko suñu sooy kon nag def na ko fu mu war a def kon yàlla yàlla yàlla jëf yi euh, suñu boobu nangu ko sëñ Tuubaa nangu ko suñu son bi nangu ko waaw ñun daal ñu ngi koy sant di gërëm bu baax baax di sant di soxna soxna maam say mi nga xam ne moom it gis nañ taxawaayam ci soxna si ak ak ni mu koy jàppalee mm, lii lépp ay taxawaayam la ak ak ak ak i xalaatam ak i yéenam ci liggéeyal soxna si te xam ne liggéey soxna si mooy liggéey suñu son bi maam mooy liggéey soxna jaara kon moom ñu ngi ko ñu ngi ko sant bu baax ci taxawaayam ci ni mu taxawee ci soxna si ñun ñun ñëpp la fa nekkal waaw loolu ñu ngi koy rafet lu baax a baax